jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision bi Bichri mbokki xarit yi nuyu nañu leen di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen wax ne skis ma ànd ak yéen ci la gën a fës ci xibaar yi ci gàttan nag ni ma leen ko junjee rek mbokk yi ak xarit yi dañu koy daal di doore nak ak ponk ba gën a fës ci xibaar yi ci gàttal daal di wutali foofee nga xamante ni mooy Tambacounda daal di wax nag la nga xam ne moo daal di lëmbe dëkk ba ñuy muy ñeel excision maanaam xarafal bi nga xamante ni it ñu ngi koy xarafal soxna yi tout tànk ya ñu daal di xamle kat ci noonu moo waral nag ndaw yi ak jigéen ñi daal di taxaw teem rek organiser benn dox ñaxtu daal di lëkkaloo nag ak association bi ñuy wax Youth Women for ak Action Sénégal maanaam la jeunesse féminine pour l'action loolu nag la ñu doon amal taxaw temb rek ngir daal di sensibiliser maanaam daal di ñaaxaat ci maanaam njeexintal bi nga xamante ni xarafal jigéen rek daf koy daal di am ci soxna si ak li nga xamante ni mooy wér gi yaramam waaye it def ba nga xamante ni rek daanu bàyyi boobile pratique ci maanaam Tambacounda boobile ci noonu nag ñu daal di xamle ay soxna yu takku lañu ay leader ay représentante yoo xam dañu nekk ci ay kuréel ay mouvement temb rek daal di wax déet ci pratique boobu ñuy wax excision foofee nga xamante ni mooy Tambacounda waaye it daal di naxa saayal ñi nga xamante ni rek dañoo gëm boobi les pratiques si noonu nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom la ñuy wax la présidente ñu gën ko xam ci Néné Fatou Marikou moom nag la mu xamle mooy li sabab bi lépp dox ñaxtu rek mooy daal di woowaat waajur yi ngir ñu indiwaat xalaat daal di dàq bi bi nga xamante amal foofee nga xamante mooy Tambacounda te app xayma sax nag daal di joxe ni kat maanaam bile pratique di excision rek doon na maanaam li nga xamante ni lëmbe na Tambacounda waaye teg nañu ko maanaam ci ñeenteeli place bi ci dëkk bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fa ndax nag téeméer boo jël rek juróom-ñett fukk ak juróom am nañ ko ci ci boo boobile pratique maanaam muy ñeenteeli place ginnaaw kéedugu Sédhiou ak dëkk bii di maatam ci noonu ñu des ci tënku xibaar yi àddu ci leneen daal di wutali dëkk ba ñuy wax Ziguinchor wax ci ñeenti doomu aadama yi nga xamante ni nag dañu daal di réer muy ñeenti exploitant forestier yu nga xamante ni dañu demoon nag daal di wuti loolee ñuy wax saaba saba sénégalensis maanaam garab boo ko di màdd ca sa ca seen fore ba lool nag ñu daal di koy amal ni ki dimanche bii ñu weesu ci juróomi fan ci weeru août booba ba nëga ni nag ñu gis ni ba ñu demee ba tey dañu dikkaatul moo tax nag ñu daal di xamle armée bu Sénégal teg na ay jumtukaay ak ay matukaay ngir rek doomu Ziguinchor ñuy xam ne nag ña nga xamante ni ñoo ni mër réer kenn xamagu leen te kenn gisagu leen ngeen baal ma moo di Mamadou Lamarana Diallo ak ku ñuy wax Modou Malal Diallo ak Fodé konaate loolu daal lañ daal di xamle ci li nga xamante ni moom la ñuy dund foofee nga xam ne moo di Ziguinchor ñu àddu ci lu ñeel wàllum politique wax ci la procureur de la République ñu gën ko xam ci Serigne Bassirou Gueye moom nag dafa auto saisiru maanaam ci coowal li nga xamante ni moom lañu ñu gàll ci ndodd magistrat yi muy coow lu nga xamante ni dafa daal di génn ci député ñu gën ko xam Cheikh bamb Dièye ci noonu nag parquet bi daal di jël ay dogal nag daal di ci profité daal di ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ni gàll nañu ko ci ndodd magistrat yi ba UMS yi ñoom it maanaam union des magistrats bi Sénégal ñoom it daal di def autosaisir ci boobile dossier di ñaawlu lu ni moo tax nag moom procureur de la république donte nag jotagul benn plainte bu formel bu nga xamante ni rek daf koy jox dogal mu mu def ay poursuite topp la député bi ñuy wax nga xamante ni mooy Cheikh Bamba Dièye dafa daal di def lool ñuy wax outrage jëmale ko ci magistrat yi donte nag convoqué woon nañ ko à la DIC niki samedi bi gis ni kat ba ñu moom Cheikh ko jotul dem wuy ji muy loo xamante ni nag ay wax yu ñaaw la gàll ko ci ñaari juge yi nga xamante ni mooy Louise Lamotte ak ki nga xamante ni mooy Demba Kandji yi nu dénk lépp lu ñeel procès Khalifa Ababacar Sall ba tey ci wàllum politique la ñuy wax wax nag ci maanaam financement yi nga xamante ni moom président Macky Sall doon na ko jébbal ay ndawu Sénégal ñu ko doon amal niki altine bii ñu weesu moom nag ki nga xamante ni moom la wax Abdoul Mbaye dafa jàpp ni kat fukki milliards ak juróom bi nga xamante ni moom la ñu joxe dafa jàpp ne dañu koy mbubboo di mbubboo lu ni mel ngir daal di yàq xaalisu askan wi waaye it daal di koy utiliser ci lu ñeel wàllum politique mu jàpp ni koppar yi nga xamante ni nag moom la ñu joxe ñanu ko jox duñu ko utiliser waaye it duñu ko rembourser duñu ko rembourser moom nag loolu la wax ndax nag donte président Macky Sall gëmloo na ni askan wi képp ku nu jox koppar yi war nga ko rembourser ci sa biir liggéey ngir ñu mën a financer waat ndaw yi nga xamante dañu taxu temb rek di xaarandi ku leen taxaw ca la nga xamante ni moom la ñu yëngu lu ñeel wàllum napp bay ak lu ñeel wàllum jur ci noonu aussi mu daal di xam le ni kat moom dina taxaw temb maanaam gis ni moom président Macky Sall ni mu yore réew mi échec la te échec boobu dafa jur maanaam lu métti métti ci biir askan wi te askan wi ñu ngi ko yëg ci lépp lu nga xamante ni rek ñu nga cay yëngu ba tey ci wàllum politique la des wax ci Souleymane Ndéné Ndiaye mi ki tey ni kat moom Karim Meïssa Wade daf ko daan wax kat mu doon koo xamante ni day koy wutal ñaanal njekk jëmale ko ci kilifa yi nekk ci dëkk bi maanaam ngir mu ana mën a am loole ñuy wax président grâce la ci noonu ci ay kàddoom la mu xam ne mooy Karim Wade daf ko wax kat mu amal ndaje ak ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour waaye it amal ndaje ki nga xamante ni moo fi nekkoon xalif général de Mourides ndem si yàlla Serigne Sidi Moukhtar Mbacke waaye mu xam ne moom jotoon naa am ab ndaje ak Youssou Ndour ci ab suba teel ci këram waaye it demoon na seeti moom dem si yàlla xalif général des Mourides Serigne Sidi Moukhtar Mbacke ba mu xamal ko ni kat mu ngay woy di ko ñaanal rek moom Karim sa Wade ndax mu mën a génn ci biir kaso bi ci noonu nag ñu buur tënku xibaar yi ak lu ñeel moom mi nga xamante ni moom la ñuy wax Boy jinnee ñu daal di xamle kat dañu ko libéré ñu ko libéré mooy tribunal bu grande instance bu Diourbel ñeel maanaam lépp lu nga xamante ni dañu ko gàlloon ci ndoddam joxe xibaar bi muy Walf ñu xamle kat libération ki nga xamante ni moom la ñuy wax Boy jinne mooy ni kat dafa nekk lu nga xamante ni ci discrétion lañu ko defee waaye tax na it doonu lu nga xamante ni daf ko setal wecc ndax nag am na ñetti tuuma yu gàllu ci ay ndoddam moom booy Djiné ñu gën ko xam ci mu du Fall lii moo daal di buur li nga xamante ni mooy seen ay xibaar ci gàttal ñu leen di jaajafal ci ànd bi ak te teewlu bu mucc ayib di ko jaajëfal Serigne Mor Niang mi nekkoon ci wàllum réalisation bi ci régie bi di wax nag la koy toftal mooy seen xibaar yi ñeel jaww ji maanaam seen journal météo di leen jaajëfal bu baax te di leen jox daje ci yeneeni jotaay xibaar قلبي أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين من قال ذكره الأمين بقلبي وجسدي أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين من قال ذكره

ربي الكريم بكتب ليس كريم أنوارها ولي الروم أحمد خير